ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur monsieur le président chers collègues man de mooy dama évoqué l'article 62 parce que dama seetlu ne wax dëgg yàlla pour Sénégal bi amoon nañu droit ñëw toog fii xool naka la ñuy liggéeyee bon seetloo l'article 62 dit les séances de l'Assemblée nationale sont publiques ci beneen alinéa ñuy wax la décision de huis clos peut également être présentée en cours de séance te gis ko fenn suñ ko dans les a cas l'Assemblée se prononce à la majorité des membres du président lan ngeen di yóbbu Sénégalais yi moom mu leen leen may ñu ñëw toog fii parce que gis naa am ñu fi toog mooy gis naa ne yi bëri na bëgg a ñëw fii au niveau de l'Assemblée nationale pour xam fi xew te permettre leen ko

mu nekk benn proposition boo xam ne c'est illégal c'est illégitime et très dangereuse quand même mais restriction ak droit fi lañ ko fekk pas plus tard qu'hier ñaari journaliste soxna Ndaak Mbacke Agora TV mel ndaak Diouf ITV oh. son nañ seen i viré oh, yoroon nañ te teewul dañ leen a jàpp dóor leen dugal leen ci dugal leen dugal leen ci ñu jàpp leen démb démb mu ngi représenté institution dañ lay def commission d' enquête parlementaire c' est pour l' honneur baago l' assemblée nationale nga wax nga def ko bon ba tey yéen a ngi jàpp ay député jàpp ngeen démb Rocky Ndiaye jàpp ngeen démb Moussa Kassa jàppoon ngeen fii Cheikh Thioro Mbacké ak yeneen ak yeneen en 2011 2012 maa ngi seen waaw Moustapha Niass nag comme suñ président la moom mooy yor xel maa ngi koy séntu maa ngi koy gis ci kii bi en deux mille onze maa ngi gis président Macky Sall yor moom gàddu gi maa ngi koy gis nii su fekkee yéen a ngi koy gis ndeysaan maa ngi gis waa Yàlla maar caat fan fa Fadel Malal Tall waaye ndeysaan seen xol daa mu naan mu naan même chien yi même saa yi effectivement effectivement Aku mau foto, beres. Kamu foto aku, aku kita mau foto, beres. Kamu kita kele, beres. maa ngi xool maa ngi gis lii commissaire Arouna Sy dégagé leen dégagé leen ana commissaire Arouna Sy dañu delloo suñu xel yi ana ñooñu tey te ñooñu boobu boobu moo tax a ñu lépp ñu toog ndeysaan moom moo jiite woon keroog timis di julli ba dragon moo jaar ci kawam am nga dellu si sa xel nga xool nu président parce que président Abdoulaye Wade lu mu def dafa toog xam ne ne peuple bii moo ma jox lépp lu ma am. peuple bi ànd ba mu def deux mandats nga la tey na déglu peuple am lu ko fi dese bariwut.

La parole euh, est à notre collègue Moussa Diakhaté.